Euh, gisuñu ci ñuy def faral di di di. bongo maan ñëpp duñu góor jigéen. Mm-hmm. man bongo maan yi ñëpp duñu góor jigéen. Mm-hmm. man de xaw ci ay góor jigéen. Pawlish loolu nee na xaaj bi. man de ñi ma xam ñëpp ay góor yàlla lañ waaye xale yi mujjee ñëw. Mm. dañu xaw nooy tuuti. ami téléspectateur ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen chaîne bii di télé Sénégal TV am mbégte bu baax a baax di jàkkaarloog yéen tey nag damaa jàkkaarloog ki nga xam ne kenn dootu ko présenté fii Sénégal euh, li doy waar nag mooy damaa ñëw seet ci sama fans ndax man day toqal ci sama xol wii neex-neex. <laughs> ñu koy wax Ouzin mbaay xam naa dañ koy daal di baay mu daal di nuyoo rek. Euh, moom nag mooy président de la république de toutes les bongoman <laughs> nuyu nañ la. waaw first maa ngi lay fay. di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sangu-sangu yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanalee tarixa yëpp seen xalif général laayani tijaani xaadari canaba canaba yi bàyyiwuma ñëpp ba ci sunu mbokk chrétien yi abe jamako la abe jamako la mooy lan kooku mooy kan euh, kiiwu catholique yi nu mu kooku kooku noonu doo Abe Jamako. <laughs> waxal lu la neex. Abe Jamako. ni nii yaa moome vent. di gërëm ñëpp. defal la sax. di sant yàlla nag bu baax di gërëm Feuz. d'accord sama xarit di nuyu waa Télé Sénégal yëpp. ñu lay fay waaw. alors euh, lan nga sekk ak waa RIE3 ndax ñun dañoo ñëw dugg si rie rek coow li bëri. fekk fi ay xale yoo xamante ne ku ci mel ne Awa Ndiaye dafa mel ne moom moo yor fans club bi de. waaw Awa Ndiaye nag moo yor fans club bi fii ci RIE RIE3. RIE3 sama jarbaat la. Mhm. mooy doomu ndeysaan Daba bu Mm-hmm. Hmm? di ko baax may ñëw di fréquenter fii seen kër ñu taqaloo nag ay kër fii 118 bii la sama yaay génnee àdduna mm-hmm. koñ bii dëkk nañ fi 12 ans d'accord man aw ma fenn fu may fréquenter ci àdduna lu dul kolabaan ak fii ku may wër sax ritura la may seet d'accord ndax sama xarit tamit fii la dëkk mm-hmm. euh, muy met sot bu Waly Seck waaw di nuyu nag koñ bi yëpp di jël nuyo bi yëpp. di ko mhm. teg ci loxo euh, saa yoro xam naa bu ma ko joxee mooy chef de quartier bi mbokkum nday Pape Naaj mu nuyul ma ñëpp. d'accord alors euh, ñu gis lu jafe si yow parce que d'habitude ba ngoomaani comme liggéey métier bi ngeen nekk ni mhm. euh, gisuñu ci ñuy def faral di di di di farataal liggéey. Mhm. tey ñu gis la nga am jom lool yor sa yëfu bopp di xëy kolobaan comme ni nga ko waxee. yaa ngi ci yëre yi yaa ngi ci dàll yi Ouzin. xam nga benn métier wóorul. dëgg te aar bi. ni ma koy waxee yàqu na yàquwul yàqu na sax l'art c'est une vieille tradition ludique kenn mënu koo yàq mm-hmm. waaye xale yi mujjee ñëw yàq nañ ko. Mm-hmm. te benn métier wóorul. dëgg la li tubaab bi naan nit danga nga war a am jom juróomi dëkk a ngi ci réew mi boo ko defee noppalu. Mm-hmm. ngor gore jàmm gën xaar yàlla ak mer muus. jàmm bi bu meree dafa war a euh, teeylu ànd ak xelam. te bañ di gaawantu. boo meree da muus. nit ki da ànd ak ngor. te gore te am jom. tubaab bi dafa wax ba wax ci jom. Hmm. na la jom c'est le point d'honneur de l'homme préférable à toute autre. valeur mais mi moom du moom dafa jàng ah. l'homme donne à souffrir à sacrifier sa vie sa recherche. mais bu nga maa ni pratiquement ñoom ay sem de la ñam ne mais. non moi je ne suis pas un illettré. <laughs> j'ai fait les bancs. oui. waaw j'ai bancs je suis un griot. Ah. mais maintenant je fais les bancs. loolu dafa raar. parce que parce que tamit j'étais en autorisation. qui me permettent d'organiser dans tous les établissements de la région de Dakar des manifestations culturelles et théâtrales. J'ai fait le drame. J'avais trois pièces à proposer les enfants, mmh. le bon élève et le mauvais élève. le comportement d'un élève pour atteindre son objectif et son but. waaye yow déggal lii. xale bu nangu jàng ak xale bu nangoowul jàng daan ko théâtre ci école yi. ndeysaan macha allah euh, am na solo li may wax sànq rek dama ko ne dama gis lu jafe si moom muy nekk liggéey kat te yombut mais jafe ne tamit nga gis bongomaan comme li nga ni géwél boo xam ne jàng na yombul te Ouzin mii. macha allah bongomaan na ci un plus un sax dañ naan la génneel ma numéro. mu ne la lan. dañ naan la génneel ma numéro diw <laughs> waa eh génneel ma fii numéro Sidi wala génneel ma numéro Sayoro wala génneel ma numéro diw. d'accord waa mais Ouzin sa problème ak bongomani Mané lan la parce que dafa mel ni yéen ci seen biir euh, jubóo woo leen déggoo de. non man Bongo Sénégal yëpp nan laay nekkee njiit nekk le président de la république de toutes les Bongo Mané di am xaar yàlla ak kenn tous les Bongo Mané c'est mon ami. Ah, ah. mais jox nañ la cër bi nga xam ne war nañ la ko jox. jox am na ñu ma jox cër. waaye ñi ma joxul cër moom. Mm-hmm. aw man ñoom benn affaire ndax man ku ma yëg ma yëg la. Mm. ku ma yëgul du ma la yëg. dëgg la. bëgg xaritu njaago du ma tax a sant mendi. Mm. ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul ma yëg la. ku ma la yëg ku ci mel ne Babacar Bongo léegi juboo ngeen. Babacar sama rakk la sama xarit la léegi juboo nañ. Mm-hmm. barki démb maa ko doon ruubee rek aéroport. mais wax dëgg yàlla fekk naa ko ci xew rek escape irbam. Mm-hmm. barki démb teral ko. ci télé laay wax télé Sénégal. ok bu dul dëgg nee na ma du dëgg ñu nekkoon ci xew mi dinañ témoin. may ko fa xaalis bu bari. Mhm. waaw d'accord. dama dama sa dégg say biir wax nga ne bongo bongo léegi même si raskat yi ñu ngi ñu ñu ngi ci ñu ngi ci ci affaire bi ñooñu bàyyi nañu wala ñu ngi ci ba léegi. dafa yàqu mus ngaa dégg katu sabar ñu koy jiiñ borom ñaari tur yi bi tëgg sabar commencé ba tey. non non non. mus ngaa dégg të tëggkatu tama ñu koy jiiñ borom ñaari tur yi. non fecckat bu góor. Mhm. mus ngaa dégg Papa Ndiaye cu fecc na fi. Mhm. ba tey mi ngi fecc musul dégg borom ñaari tur yi. dëgg la sunu papa Mori Cuun bu Youssou Ndour fecc na fi. àlla sekk. àlla sekk galo ciel la. Uh-huh. ñama ñama. sama xarit la. ñooñu ñëpp fecc nañ ba bàyyi. musu ñoo dégg borom ñaari tur yi. léegi xale yi ñëw ñun ñu defar bongo xàll yoon wi. ba yoon bi mat. ñu bëgg fi indi affaire yi ñeme ñeme du ma ko nangu. vraiment waaw kenn du fi nooy. d'accord alo xam naa ci loolu laay jaaree sax gis nañ fi Pawlish Mbaye mu génn yàggul dara. Mhm. ne Bongo Maane ñu ci bëri ay góor jigéen lañ. borom ñaari turi maa ngi tuub ci kàddu gi euh, ma gis ne daf ci cité sa tur muy yow ak Vieux Niang. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mhm. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim. Mhm. la ilaha illa allah sayyidina muhammadan rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nit àdduna kenn dëkku fi mm-hmm. te àdduna yàggul dama woy benn morso na ngéwal nañu waxtaan mm-hmm. kaa leen ñu waxtaan mm-hmm. sëyu góor jigéen ñi ci réew mi ñoo koy tëgg guddi town yi ci réew mi ñoo koy tëgg bëccëg town yi ci réew mi ñoo koy tëgg dellu si waat na bëgg xaalis bu mu tax ngay jaay sa bëgg xaalis bu mu tax ngay jaay sa deret mm-hmm. du ñu nangu kenn di ci foo ba yàqal nu ko mm-hmm. wala sax bu nuy foo du ñu nangu nga di ko filmer ba siiwal ñu ci géwal c'est un noble mm-hmm. nous sommes les héritiers de nos ancêtres les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront l'art de parler n'a pas de secret pour nu tout ce que nous savons nous les jeunes griots nous l'avons appris dans nos ancêtres. man man gisuma Ouzin Mbaye tey de benn intellectuel laa gis. suñuy maam la nu jàng lépp lu ñu xam ñun géwël ndaw yi te suñuy maam mosuñoo dégg nañ laal nopp. Hmm. xamuñu sox borom ñaari tuur yi. c'est ça. géwël yëpp ay noble lañ. Hmm. Pawlish wax na dëgg. Hmm. waaye du ñëpp. tey jii jotaay bii ñu toog sunu grand yi toog. ñu fekk ñu ñun ñëpp ñu toog Ouzin Mbaye teg. maara day taalim butéelu sàngara di naan nit yu romb buñ demee dañ naan gis nañ ñoom Ousseyn Mbaye ak ñoom saa yoro teg sàngara di naan Sénégal day généraliser nan lañ ko wax globaliser. du mm-hmm. ne diw laa gis muy naan waaye di ci dugal ñëp ñëpp la ciy dugal voilà. bongo maan yi duñu góor jigéen. Mm-hmm. man de xawma ci ay góor jigéen. Pawlish nee na xaaj bi. man de ñi ma xam ñëpp ay góor yàlla lañ waaye xale yi mujjee ñëw. Mm. dañu xaw a nooy tuuti. dañuy xeex du ma du ma tudd naka la góor di jëlee sa fii. rocci ruusal ko ba mu mel ni deretu bëy. dañ koy naka góor di bënnee bakkan. <laughs> naka la góor di bënnee làmmin vraiment lan moo ko fi jar ci këru àdduna ci boo li nga xam ne àdduna yàggul. dara jaru ko. man de bongo maa ni ma xam. Mhm. ku mel ni Galas Bongo. ku mel ni Ousmane Bongo. ku mel ni papa Bongo Tëngéej. ku mel ni Saneex ku mel ni Fallou Petit Coppet. ku mel ni Karbala. ñooñu. ay góor yàlla ak ñu bari. bu ma limee mun naa fi fanaan. ñu bari ay góor yàlla lañ. mais am na fi ñu bari ñu mag ñoo limul xanaa kon da nga bëgg wax ne ñooñu ñoo ko nekk. man daal ku ma limul aw mag yow affaire. ok. waaye ña ma lim moom xam naa ne ay vrai homme lañ. dama génnee slogan bu bees git gi git gi waxal loolu. mais loolu amoon na fi. waxal git gi daas git gi càkkin ma tekkil borom ñaari tur yi buñ ñu laal buñ ñu jege. git gi taas git gi càkkin. <laughs> voilà <laughs> Ouzin ñu gis ne li ngay taasoo wax naa ko sànq euh, boo taasoo day neex nit yi day dugg ci xolu nit ñi personnellement man dama ciy boole sama bopp. wax kenn du ko man danga koy jekku ndeñ